bu réew mi toll Cheikh Bara ñu gis ne daanaka lépp a jàmp te xam nga sénégalais moom boo ko joxee mun naan lekk mun naa taaxirlu taaxirlu nëgandi ci waxtu joo xamante ne xale yi ñu ngi dundee yaakaar yaakaar bu fës lool te gëm naa ne cin li daanaka tegu na te togg bi warta warta warta yàgg lan nga yaakaar ne ci ci daar daar war nañ ko mun a jëmmal pour askan wi dundaat yaakaar goo xamante ne xëy na dootuñu fi jaaree jël gaal gi xëy na dootuñu fi jaaree béykat bi jàmbat nappkat bi jàmbat sàmmkat bi jàmbat euh, ndax ci jamono ji Sénégal euh, yomb naa yor boo jubalee rek mun ngaa jubanti lu bëree bari ci réew mi. waaw dëgg la. Mhm. loolu moom damay wax benn wax boo xam ne wala fa koy wax. muy bañ a dal waa nguur gi bañ ñoo dal. waaw mooy gumba boo ko dellooy bëtam yat wam doon làmbatoo lay njëkk a wàcc. dëgg la waaw. dañuy fexe ba ñun ginnaaw bu ñu xeexee ba jot ci am Ousmane sonkook Jomaay ca ba. Mhm. yat wi doon làmbatoo en tant que yat yoon doon xeexee. ñu bañ koo teg. Mhm. Ousmane Sonko ak tamit transparence ak déggook askan wi. ak dëgg gi nekkoon ba askan wi liñ jaral askan wi ñoom itam ñu bañ a def na gum bëgg a defoon. Mhm. mooy jot ci say bët wàcc yat wa. ñu téye ko. suñ ko defee rek dañuy am jàmm li ci des mooy euh, réew mi buñ bayee dañ ciy génn man yaakaar naa ne gouvernement bii di ñëw star bi moo nar a nekk ministre de l'agriculture ki yor wàllu mbay mi parce que gaa ñi am nañ suuf réew mi xaaju ñaar ñëpp sax ay baykat lañ xaaju réew mi xaajaat bi ay baykat lañ dégg am nañ suuf ay baykat yu bëgg mbay mi ngi fi nangoo bay ba noppi bari gone yoo xam ne moom dund rek lañ bëgg mooy am am am xéewal dégg nga buñ la gisee sax ñaanal ma ma nekk milliardaire sëñ baa man yooyu rek lañ lay wax affaire xaalis rek Sénégal moom bu ñu amee xaalis amuñu benn problème kon nag bu fekkente ne suuf saa ngi fi xam-xam baa ngi fi. waaw maanaam ñi ko def ñi ko mën a def a ngi fi ba noppi bëgg-bëgg baa ngi fi suñ ko suñ suñ suñ ci liggéeyee tuuti mhm. dañ koy réussir rek. moo jafe woon mooy fond Baye Assane mii xam-xam kese la mhm. mën naa defar projet bu ne ci àdduna waaye bu demoon ne damay wut un milliard ku ma financé ma def nangam du mën a sotti parce que amuñu accès ci xaalis loolu nag il faut ñu defar ay fonds yoo xamante ne du ñu bàyyee banques yi parce que tey da ngay imaginer économie acteur économie yi rek ñoo koy doxal <coughs> tey Paa Assane mi ku ko joxoon un milliard xoolal li ci mën a xew lépp mhm. ñaata maçon li ngi ñaata oto jaaykatu oto chauffeur secrétaire maanaam lu bari dana xew léegi émotionnel képp ku am xam-xam am am am am capacité mën a mën a doxal bu ñëwee na la lebal ma cinq cent millions lebal ma deux cent millions nga jox ko ko ba noppi fekk yaa ngi ko teg ci critères yu leer xoolal askan yu bu ñu jotee ci loolu maanaam loolu lan la mën a def léegi askan yu boo leen boo leen boo leen renouveler ñu liggéey léegi xoolal loolu PIB Sénégal ñaata lay nekk day suqaliku day dox mhm. parce que pays maanaam maanaam li ngay produire par jour dafay dafay dafay yokk léegi mais boo bàyyee nit ñi dossier yëpp nekk ci tiroir yi borom bopp yëpp nekk ci plateau yi toog daanaka ñiy wax nii am na leneen luñ mën mhm. mais dañoo gisul luñ def ñu ñëw di wax ak nit ñi nii rek mhm. di joxe leçon de morale mais dëgg dëgg fii ne kii tey mën naa produire ne milliard am na xam-xam bi am na yëg-yëg bi mais accès ci xaalis yooyu yëpp nag buñ ci accès rek maanaam dafay dafay yomb te yaakaar naa ne lépp mi ngi fi ñu ko defa ngi fi ñuñ koy defal ngi fi dégg nga ba pare def euh, préférence nationale mm-hmm. waaw voilà préférence nationale mooy euh, par exemple tey ni ma ci li ma ci jublu laa bëgg a wax mooy marché yi mm-hmm. da dem fu mel ne port tey bépp marché buy génn maanaam libaane yee koy gañe mm-hmm. sénégalais du ko gañe tey fu mel ni ministre de l'intérieur ak yu bari marché yi daal dafa mhm. demul ci ñim war a dem loolu tamit nañ ko xool doomu réew mi préférence nationale doomu réew mi gis seen bopp ci réew mi préférence nationale mhm. oui ci parce que ñun boo xoolee suñ constitution sax ni mu tëddee mhm. ñun dañoo am préférence nationale Sénégal first parce que mooy euh, tey da ngay jël ko mel ne Camara ñu la moo nekk directeur général bu douane Bénin xam nga tey ab beneen waa ñun duñ ko jël def ko directeur général parce que mm-hmm. ñun noonu lañuy doxee bu dee beneen ñoom dañ ne ñun xooluñu xooluñu xooluñu xooluñu nationalité mm-hmm. yow maanaam amal amal compétence doxal lii rek dama la koy jox mooy préférence nationale boobu ñu nekkuñu ci ñun nag suñu suñu suñu suñu doxin noonu lay defee suñ ko continuer ci yu bari dañuy dem ba nga xam ne doomu Sénégal yi dañuy suqaliku mm-hmm. dégg nga man nag jàpp naa ne cent pour cent laa ko gis nga dama maa ngi koy wax Omar ibnu Abdul Aziz bi muy jiite euh, lislaam ay économie moderne ay croissance ay banque mondiale yooyu yëpp xewul woon waaye maandu rek la jël teg ko rek dem nañ ba nga xam ne pauvreté dafa jeex foo mas a fekk buur bu maandu su nekkee ci kaw askan wi rek maanaam way ñàkk yi moom dañuy soqali ko maandu day suuxal mooy li naan cerey baadoo la mooy suyum corey buur rangoo ñi baadoola la mooy suuf cerey buur saa bu ñàkk a maandu amee rek ñi gën a néew doole dañuy tëdd moom la ndongoloo naan borom doole yaa ngi dimbalante ñun néew ji doole ji fu ñu jëm parce que dañuy nekk ca kaw di di di di di jëfandikoo yëf yi ñun duñ ci jot léegi nag bu fekkente ne moom tey nañ xool ba xam ñun kiñ fal maandu na wala maanduwul boo xoolee ci parcours am da nga mën ne kii kat ku la Macky Sall it nag ma ko waaye boo xoolee ci parcours wax dëgg yàlla da nga xam ne <coughs> ah du ma ne waaye wërsëg wi wolof njaare nee na wërsëg moom bu bu judd bu màgg ga gaawee judd ba rafetul ma daal sekk boo wax nee na su màgg ga gaawee rek ba rafetul waaw te waa ji wërsëg yu màgg gi gaaw na lool ay kër yi Maroc ak ay kër yi États-Unis ay kër yi fii ngay dégg jomaay nag moom am naab tool fee am naab terrain fee la wax am naa téeméeri nag bor yoo xam ne sëñ bi 40 millions. 40 <coughs> millions. <coughs> loolu nag lim ñuy wan mooy kii nu fal moom way maandu la. waaw maandu googu nag yàlla joxoon ko. ba mu jot ci réew mi yàlla na ko yàlla téyal maandoom. téyal ko dignitéem téyal ko ngorom. ba mu yeggalee ko noonu. te sama loxo ca kaw bis bu demee bay bàyyi bay def déclaration patrimoine am danañ xam ne fa lu ñu woonub sàcc. te nag askan wi moom ku maandu moom ñenn rek a ciy perte. mooy ñu nanguwut a liggéey toog muy dox yeeg tëdd muy dox yeeg euh, bippe muy dox yeeg appel muy dox yi <laughs> waaw wax mu ne xaaral ma code fil ko ñooñu moom danañ nekk ci tooxi doona waaye ñu nangoo liggéey moom uh-huh. nguur gi seen nguur la bippe muy dox mooy la d'accord <laughs> tàggatoo lay damay ñëw rek rebondir ci li Pa wax léegi Cheikh Bara wax ko mu di doomu Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon bëgg alternance ba tey ji yàlla xëy na wërsëgaleen lenn li mhm. euh, nañu patienté nañu toog nañu ñaan suñu borom mais tam ni ko Cheikh Bara waxee nañu jóg takk seen digg liggéey bu ñu àndee gouvernement boo xam ne nii bëgg na leen a jàppale yaakaar naa ne euh, ñu sonn te duñu duñu tàyyi daal ci li nga xam ne moom la ñu def tey li ci des mooy euh, comme Cheikh Bara dañu ko xam mu nekk doomu daara yàgg prôné ay valeur yàgg euh, waxtaan ci li nga xam ne mooy jikkoy sénégalais yeeg nekki nag yeneen mhm. te buñ ko defaree yaakaar naa mën nañu réussir lu bari bari après ci biir gouvernement bi est-ce que Cheikh Bara yaakaaroo ne en tant que doomu daara dañu war a réformer aussi euh, école française bi maanaam jàngal ñu sunuy maam dellu soir sunuy coutume defaraat njàng mi ba nga xam ne nii jikko yi tam dina fa jaaree soppiku parce que bu dul kër aussi am nañu jàngukaay yi comme ni ko daara ji ma ne ci jikkook yeneen ak yeneen waaw euh, loolu dañ ci am xel mu dal parce que teewluwuma ko lool mais am nañ programme boo xamante ne mi ngi ci biir programme bu Pastef keroog Cheikh Omar Bamba Diop ñoom ak ñoom Cheikh Tahirou Fall moom lañ doon exposé fii ci temps wu campagne bi ñoom loolu moo nekkoon seen campagne pour fësal euh, kii bi programme mais li am solo mooy li ma waxoon sànq Ousmane Sonko ci patriotisme la woote patriotisme nag dafay feeñ ci côté histoire. Mm-hmm. di feeñ ci langue di feeñ ci côté économie. Mm. dégg nga kon histoire réew mi da nga jàpp ne danañ ko sëf garde danañ ko yëkkati danañ ko yeesal dégg nga ba jaay ko ba àdduna mën koo jënd. Mm. nit ñi sauvegarder économie ak leneen histoire boobu nag histoire réew mi daanaka lépp day alxuraan. voilà te it ku ne xam na digganteem ak alxuraan waaw kon maa ngi ñaan daara tamit euh, ñu bàyyi xel ne euh, dañoo bokk ci mbir mi léegi. Mm-hmm. nekkatuñ ku ab amateur bu ciy seetaan. Mm-hmm. dañ kee bokk ci biir. Mm-hmm. bu ñu ragal indi suñuy idée mais bu ñu ragal tamit jël idée yoo xam ne ci état bi la jóge jëm si ci ñun maanaam ñu boole defar. yëkkati ñii fi nekkoon nag nax dong la ñu doon def biñ demee ba Modap am mu gis sëriñu daara yi niñ mel ci Ousmane Sonko ci nga tàmbalee gis muy sargal ku jël kubub alxuraan tàmbali naan fekk leen ma jëm ñaajoog di commencé di di may bët waa daara parce que dafa jàpp ne ñooy doolee Ousmane Sonko bu dee Ousmane nag dafay dund alxuraan dafay dund nitu daara dafay dund euh, dafay dund yàlla kon kooku ñun ak moom buñ boolee rek dafay am lu mën a juttu dégg kon nag maa ngi ñaan mbooleem nitu daara yi ñu bàyyi xel ci ne maanaam lii nekkul lu ñu boolee waaye luñ bokk la luñ moomal suñ bopp la waaw kon nag euh, xaw ma teewluwuma sax yan réforme moo ci am wala lu ci mën a am mais xam naa ne lu mu ci mën a doon rek maanaam njariñul alxuraan lay doon. incha que ci kii bi jógee moo tax. jërëjëf <laughs> wax ji rafet na mais soxna Awa dafa am euh, fu Pa Assane laal fu ama ama am solo ci mbirum euh, reddition des comptes parce que ba muy am ci régime bii nii euh, mais deful woon pour ñu rendre compte ci ñi nga xamante ne ñoo ñoo doxaloon pendant douze ans mais dafa mel ni boo xoolee premier conseil de ministre u président Macky Sall 2012 2013 ah, jëm noonu mm-hmm. daanaka ñu ngi doon wax ci ay cré yi nangam mais loolu li firndeel ne nekkul woon reddition des comptes pour alalu askan bi dellu si mooy dernier bi dernier conseil des ministres bi ña doon toppe mooy procureur ba kañ doon topp Omar Sarr ka leen toppul woon moom président ñoo ñëpp ñoo delluwaat ci même conseil des ministres bi mm-hmm. maanaam ñañ doon topp ak ña doon toppee ak ña mm-hmm. dëgg woon topp leen mm-hmm. kon mbir mi neewu ma ne ñañ doon topp defuñ dara de mais dëgg-dëgg soubassement bi nekkul woon Euh, delloo askan wi li mu moom mais en réalité euh, c'était des règlements de compte politique alors que l'exécutif dañ ko doo ci doon dégg lu bari mm-hmm. tey président Diomaye ba Macky Sall yi bëgg a nekk candidat ca mm-hmm. dafa dem RFM gii fàtte naa ko ko doon introsé ne ko est-ce nekk candidat mu ne waaw parce que dama am règlement de compte ak PDS ah mm-hmm. xam nga loolu booba xamul woon dina nekk président <laughs> mandat bii paasan di wax échec la looloo ko échec loo parce que reddition des comptes boobu noonu euh, président Diomaye li ñuy xaar ci moom te am yaqin ne dina ko def mooy moom yoonam newul ci justice. yes ak na muy doxee. yes yoonam newul ci reddition des comptes baak procédure bi procureur bi yoon xam bu leen sax xam. kenn kenn du intervenir. kenn bu mu intervenir moom li ñu ko fale focus euh, sur le les besoins des parce que amul leneen loo xamante ne amul keneen. Ousmane Sonko ak Diomaye ils ne sont redevables à personne d'autre que le peuple sénégalais. Mm. ils ne doivent leur salut que le peuple sénégalais. Mm. peuple bi moom moo taxawoon ci contexte bu difficile. ànd ak ñoom ci lii ba tey fal leen palin boo xamante ne opposant bu jàll au premier tour mësuta am donc kon loolu noonu. Euh, maanaam débat bii nii ay dualité ak yooyu yooyu ce sont des faux débats existé nga xamante ne Euh, seen xol bon na ci ànd boobu noonu ñoom ñoo jéem a àndi loolu noonu waaye ànd boobu àndu Sénégal la ñooñu dañoo ànd te Sénégal tax ci projet bii nii. Mm. bu weesoo loolu yàgg na ni ànd ci yeneen. donc politique boobu borom réew mi ñëw na. Hmm, waa kay mooy borom réew mi nag. voilà waaw mooy président réew mi Sonko mooy borom réew mi. <laughs> très te te li Cheikh Bara wax foofu dafa am solo. <laughs> Uh-huh. gis nga opposé wu. Mm-hmm. opposé wu moom du yomb. <laughs> du yomb de parce que copie yi double correction la waaw double correction nag contrat bu joomaay xool Sonko xool. pour nga gis ci loo ci critiquer dina jafe. waaye opposition bu Barthélémy Dias nekk. Euh, Barth man du xam du xam <laughs> man xam nga man àndu baag woon ba muy dem mairie Dakar parce que dama ne woon amul xam-xam bu mu ko yoree mais bon euh, du opposition rek ay jafe. <laughs> opposition bu Barthélémy nekk Pape nekk fa Anta Babacar nekk fa. xaaral ma wax la non Khalifa retraité non <laughs> xaaral ma wax la mais ma la. Barth moom de 4 avril bii bu fa ñëwee naan Diomaye sama doomu ndey bu mu la bett. nga ne. maa la ko wax. ci prise d'arme <laughs> bis bu fa ñëwee naan la Bart sa naan naan naan ko jomaay sama doomi ndey moom la teg ko ci suuf ko gañee ba léegi génnul néegam mi ngi nga cité noonu uh-huh. mais nekk opposition tey tey ça veut dire que opposé wuñ parce que yow balaa ngaa opposé wu da ngay opposé wu ci benn idée ci benn acte koo xamante tegagul acte nga gis ñenn ñoo xam ne nee nañ la lañ kon kay loolu opposition de faciès la c'est-à-dire euh, nit ki nga bëgg opposé wul mais pas ay jëfam moom kon opposition dafa war a nekk ci am zéro virgule léegi koo xam ne daa lépp commerçant trente millions jafe ay donc moom loolu <laughs> am na ñu bëri mi ngi ci réew mi day disparaître d'accord ma ne y compris ah daa am boo xam ne daa dem ci benn commerçant ne ko lebal ma trente millions joxe ci la joxe caution eh? <laughs> zéro la am zéro la am zéro virgule <laughs> waaw kooku nag moom xam naa ne yaay wax opposé waaye talu ko kana ban léegi mais loolu xibaar <laughs> léegi léegi question na yàlla laa la wax waaw bi après Salma ñëw mu boole doo yëpp tàggatoo waale ko léegi Cheikh Bara man euh, parce que yaa ngi ancré ci société bi xam nga dëgg-dëgg loo xamante ne à court terme président Diomaye daf koy def ñu xam ne rupture am na bu doon euh, urgence dëgg-dëgg li mu war a njëkk song ci euh, askan wi pour yow lan la war a doon ci premier acte mi d'accord da nga koy yóbbaale xaaral euh, Salma ñëw nga mm-hmm. yóbbaale yëpp ak Pape Sané voilà Salma demal mooy li ma li ma bëgg a wax kii daf ko boose sax parce que depuis tout à l'heure ñu ngi wax ñenn ñi tudd kenn ci ñoom di Azoura ak mm-hmm. yeneen ci patriotes yi mm-hmm. patriotes yooyu di sénégalais dund lu metti te on peut dire que am nañ lu lu leen metti ba bu ñu toogee di wax saa yi suñuy wax dangay gis ci seen baat ak ci seen xol ni ko maanaam dañu amee nakar ba tey pour réparer cette injustice wala psychologue bi gën a mag ci ñoom est-ce que du réparer injustice bi maanaam fexe ba yoon am. parce que y a eu trop d'injustice euh, Cheikh Bara yoon amul woon ci dëkk bi ñu jàpp leen di leen maanaam euh, salfaañee seen ak ak seen yelleef. seeni i liberté yëpp. Azoura bokk na ci ñi nga xamante ni bi bi ñu bëri falagul wala xamagul Ousmane Sonko. Mhm. mi ngi woon à côté donc yenn communication yi bu ko nit amee da ngay xool lan moo ko waral. ak kii mooy kan ci nit ki d'abord est-ce que amul nii que jamono ji c'est-à-dire il faut ñu réparer defu dara président du yàlla du yonant du dara defu dara injustice gaa yi ñoo fi bëgg nii rek ah mm. Cheikh Bara jeex na fi Cheikh Bara man damaa bokk ci ñi gëm ni injustice bi il faut ñu réparer ko ba pare non loolu dañ na maanaam dinañu tourner la page mais en mhm. commençant par il am ba pare. en commençant par pour réparation mën en commençant par. waaw ñi xam ne la concerne aussi ñi ñu yàq seen i ay der. Mhm. ñi nga xam ne dañu leen a jiiñ ñi ñu tooñ ñi nga xam ne mënuñoo baale. waaw justice day am. ku ci nekk na jubali fa nga war a porter plainte gàddu sa dossier yoon am na si nekku ci am na lu am na si xoolal loolu nit ñi ñu ngi ciy guddi suba ngoon bëccëg na ku ne gàddu sa kayit nañu dem nañu leeral nit ñi ci devant tous les sénégalais mhm. kii lii la def mhm. lii lañ ko doon toppee lii ak lii loolu yoonu président de la république ak keneen newu ci ku ci nekk yaa yor sa cëggal guy na ku ne mhm. gàddu sa këyit ku bëgg a gàddu gàddu mais justice ku bëgg a gàddu toog euh, mais awa euh, diaspora bi dafa am rôle bu important waaw Cheikh Bara pour terminer avec ça diaspora bi je pense que ñoom i tamit moodu moodu yi ban attente lañ mën a am ci gouvernement bi parce que yaakaar naa aussi seen apport nekkoon na lu ñu laa ñaale ci élection yi la diaspora mooy ñaari question Pape Sané non man sama question bi dama ciy dellu si waat mooy la nga xam ne moom la sénégalais yi moom la président Bassirou Diomaye Diakhar